mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla ñu suñu borom jéggal mboolem suñuy rëcc rëcc ñu ngi ñaan suñu borom mi daw dara tawut yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaam ñëpp ba lu mu wax lu ne moo ko ko wax loo lu mu def lu ne it moo ko ko def loo ñu ngi koy ñaan ci kàttanam ci sañ-sañam ci man-manam yàlla nañu yàlla sàmmal boppam aaral ñu boppam gindil ñu boppam jàmm yàlla na sotti jàmm ci suñuy kër sotti ko ci suñuy xol sotti ko ci sunu njaboot sotti ko ci sunu dëkk ba kenn ku ne ci ñun bu xoolee gis ko bu làmbee daj ko amin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ragal yàlla bokk na ci lii tax kenn ku ne ci ñun mu mën a mucc bokk na ci lii tax kenn ku ne ci ñun ñun dëng dëng mbiram jubbantiku ragal yàlla bokk na ci liy tax kenn ku ne ci ñun diineem yiw ragal yàlla bokk na ci liy tax kenn ku ne ci ñun àddinaam jag ragal yàlla bokk na ci liy tax kenn ku ne ci ñun ñun wërsëgam di dolli ko yàlla di ko wërsëgal fu mu foogu toog ragal yàlla bokk na ci liy tax kenn ku ci ñun duggam aljanna mën a yomb te benn jafe-jafe du ca du ca topp yàlla nañu ko suñu borom defal kon nañ maase ragal yàlla suñu borom bu ñu wéetee ak bu ñu na ngeen xam ne it gëm dëgg kum yàlla dëgg ne ci yow do jombale suñ borom lu lu sam xel atanut gem deug kum ne ci yow do suñ borom lu sam xel atanut te yalla te yalla def ko mo motax tax abdul ahad mbake radiyallahu anhu nee woon na gëm ku muy ci yow ñak tek sa bet ci mbir du tee nga man ko wat ci kay yef ku gem yalla nak li ko yàlla wax mooy gën a dëggu ci moom li mu teg ci ay bëtam ndax gëm gëm te bokk na ci li ñu war a gëm li nga xam ne alxuraan moo ko jàngale mooy xew-xew bi xewoon ay jamono yu yàgg ci jamono yu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax booba kat sonn na lool kër yi muy dugg da koy xool da koy tànn fajar teel lay xëy dem ba ci kaaba ga jaamu fa lam fay jaamu suñu borom génn dëkk bi dem dugg ci àll bi di wër ba jant so mu doog a ñëwaat ngir lan bañ a dajeeg noonu yi nga xam ne nii ñoo ko xatal ci biir dëkk bi ba mën a fay jël ci jamono boo xam ne soxnaam si ko gënoon a fonk gënoon koo jàppale làq na muy Xadijatu bint Xuwaylid ci jamono bi nga xam ne Abu Talib di bàyyam mu ndaw daj ci moom ay coono yu ne jamono boobu mu làq moom it mu ne ci biir tumuranke gu mett ci zahir sunu borom it di ko yaral boppam ndax yàlla yar na ku te kum yaa nga yaru diir bu metti boobu nga xam ne fekk nañ ko muy sujjóot ñu jël ay sibirit yu ànd ak ay sax ñu sotti ko ci kawam nit fekk na ko muy sujjóot mu jël tànkam teg ko ci bopp bi mbaa aw xeer mbaa lu ko nduru ay xeeti mbir yoo xam ne kenn bëgg koo fekk ci barab moom daan jël di ko sànni ci ci buntu këram mu xat ci dëkk bi lool waaye sonn lool ci jamono boobu la ko xew-xew bii dikkal waaye dem na ba génn ba dem ci ab dëkk ngir bëggoon faa nekk waa dëkk ba ba mu leen woowee ca lam leen di woo waa dëkk ba woo gone yi ak jigéen ñi ak ñi gàtt xel ñi ñu jël ay xeer di ko ko sànni ba deret ji di rogalaan di sotti ko ba mu ñaan ñaanal bu siiw googu nga xam ne day wax ne yow suma borom te ab jullit saa yu jaaxle ñaan rek moo ko mën a delloosi ñaan rek moo ko mën a dimbali ñaan rek moo mën a jegal mbiram ñaan mooy ngàndaayal jullit lépp loo dëgër loo wallaahi di nga dem ba tollu foo xam di nga xam ne ñaan suñu borom moo lay xettali moo lay delloosi moo tax ñaan am doole am doole lool ba day jariñ nit ci waxtu wi dund da koy jariñ waxtu wu mu faatoo waaye fexe ba ñaan gi lépp jëm ci ki la mën a may ñaan gi lépp jëm ci ki la mën a may te nga sellal sa diggante ak moom mi ngi wax ne allahumma asku ilayka don fa quwati suñu borom maa ngi jéptaan di la jàmbat doye di gii nga xam ne doye di naa ko ci biir dëkk bii nga xam ne fi laa gënee àddina néew ay pexe lool néew fu ma jaar ba mucc ba bu may dox mënumaa xool kenn daanaka ndax yàq lu ñu yàq sama der bi ñii di ma tuddee am njabarkat ñii di ma tuddee leneen te ñoom ñëpp xam nañ fi ma gënee àddina ndax am na jamono ñoo ma tuddee woon Muhammad al Amin nit ku wóor koo xam ne loo ko dégg mu delloo la yaa arhamar rahimin yow mi nga xam ne sa yërmande matale na ñëpp wa anta rabbul mustadafin ñi néew doole ñëpp ba amuñ fu ñu jëm dañ tooñ leen te kenn taxawul temm ci dimbali leen yow képp yaa leen mën a dimbali yàlla ci kan nga may fan nga may wéer kan nga may booleel ndax danga may bàyyeeg samay noonu ñuy taseeg man ci ay xar kanam yu ñëkk ak i jëf yu ñaaw ak ay tur yu ñagas wala danga may bàyyeeg ab xarit boo xam ne day moom sama mbir waxtu wu ma meree jëfandikoo meram ci man loolu lépp mën naa koo muñ ci kaw soo ma merewuñ in lam takun xadbaana alayya fala ubaali waaye cey boo ma mayoon jàmm sama xol ibbiku sama xol gën a leer ba li nga ma yónni ma man koo gën a tal kon day ma gën a sant ma gën a dolli ci la ma la doon sant waaye noo ma def neex na la neex na ma maa ngi muslu ci sa leer gi nga xam ne moo leeral asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar te bu àddina jegee ci la jegee maa ngi muslu sa mer di wàcc ci sama kaw تميرم يالله بوك نجي لغاية واجه موكي تور دريت تور دريت جو حرام فك نيت كي دونو تور دريت بوك نجي لغاية واجه ميرم يالله من نا اندي بكور بو مت مت ابدك من نا اندي تو نانك بو مت مت ابدك من نا اندي اي خيت تاوات اك ينين ينين يالنا يالنا نيو سي بروم دولي مسل داد نكو نك لك العقبه حتى ترى ولا حول ولا قوه الا بك باينا لك سما لب جوخنا لا سما لب وقت ولا صوبي nga indil ma jàmm yaatal ma ci dëkk bi may ma kàttan ba li nga ma yónni ma man koo tal ndax jaam amul pexe amul kàttan at mii nag mi ngi toog tolloog at mi ñuy wax atum njàqare ma ni ma ko waxee léegi soxnaam làqu na te moom rek la yoroon jamono boobu bàyyam mu ndaw làqu na te moo ko taxaw ci lu bari bu ko defee ci jamono bu tiis bii ci la ko suñu boroom rañaanal mu jógee màkkatal mukarrama jëm fa ñuy wax baytul maqdis ñun nag ñu ngi jàng ci alquran al masjidul aqsa jàkka ji gën a sori al aqsa boo waroon jàng naxwu dañ lay wax na la mooy afaalu tafdil maanaam sori na loolu ba lu sori gënu koo sori fan ba mu àggee ci baytul maqdis boobu ak yoon yi lu mu fa dajee la lu mu gis gis na lu bari ci yoon yi romb na lu bari lu keemaane ba mu fa jógee ñu tegal ko lu ñuy wax miiraaj mu yéeg ca romb asamaan juróom-ñaata benn bu ci nekk romb na fa ab yonent mu tatal ko tatagal ko sargal ko ndokkel ko ci li ko yàlla yónni mu dem ba fa ñu wax sidratul muntaha nga xam ne xibaaru mbindeef yépp fa lay yem Seydina Jibril dematul moom mu jàll dem ba àgg ci alxadra alqudsiya bi nga xam ne néewaa na ko fa àgg suñu borom di wax ak yow mu àgg fa suñu borom woo ko ci kàddu Seydina Abubakar Siddiq jox ko fa julli juróom ginaaw bim ko wañe mu doon juróom fukki julli xeexoo bi nak mom la suñu borom di wax ne سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير am ñu من آياتنا تخيط ci أن أن ni أن سيدنا جبريل لك أن لون ورد la ko àndaloon war daaba baxla lañ koy wax bu weex daaba jooju fi bëtam di tegu fi la aw tànkam fi la ab tànkam di tegu ngir gaaw mu romb suuf su bari ay tàndarma ci bi muy dem ñu ne ko fii mooy yasrib mu dox tuuti rombaat barab bu ko bu ko yéem ñu ne ko fii mooy madyan dëkk bi yonente yàlla Shuayb mu doxaat tuuti yem ci beneen barab bu ko gën a yéem ñu ne ko fii la Seydina Isa gane àddina muy baytul laxmi muy romb ay mbir te mel na mbir mu ci nekk suñu borom bi ko jàngal ci làmmiñu Seydina Jibril alayhi salaam yonent bi ci guddi googu romb na ay baykat yoo xam dañuy bay léegi maanaam dañuy ji léegi bay léegi mu ñor léegi ñu góob ko léegi te loolu bis bu set noonu la ñuy dëkkee mu ne ko ñii moom lu muy tegtale mu ne ko ñii mooy ñi nga xam ne lañ daan am ci àddina tam leew leen doom seen bakkan daa leen daan leen tere joxe te yàlla tax ñoom ñii ñoo daan not seen bakkan di jël seen alal di ko joxe te yàlla tax teraanga ji la yàlla wéy ak ñoom mu dox mu dox tuuti romb ay nit ñu jël seen bopp di ko dóor ci ab ci ab xeer seen bopp yi di toj boole koog di nàcc waaye saa yu bopp yi demee ba mënatul dara suñu borom dolliwaat ci kàttan ba bopp ya mel na meloon ñuy wéy di mbëkk xeer yooyu yàlla xam ba xam day xasanam déet mu ne ko mu ne ko ñii mooy ñi nga xam ne julli dañ koo tàyyi woon a def di julli daal diisoon gan ci ñoom seen jë yi daawuñ ko dëppal yàlla ci suuf si ngir lan ngir tàyyeel mu dombaat aw nit woo xam ne ni bàyyi may di lekkee ñax mi ni la ñuy lekkee ay këyit di lekk gàncax gu ñuy wax daria mbaam àll sax du ko di lekk garab gu ñuy wax zaquum mooy mbugalum waa sawara mu ne ko ñii muy luy seen mbir mu ne ko mooy ñi daan lànk bañ a joxe asaka te mënoon koo joxe di ko gëmm gëmmalu di ko sëgg sëggul mu dox tuuti yam ci aw nit ñoo xam ne dañ leen di tegal ndawal gu yees peq guñ lakk gu ñor ànd ak la mu war a àndal lépp waaye ca geneen wet ga am na ndawal gu yàq gu fa nekk goo xam ne ni ñorut ñu bàyyi ndab lu teey lu neex loolu dem ci ndab li nga xam ne nii ndawal gam def daa yàqu te ñorut ñu dee jëfandikoo bu baax a baax te ànd ànd ànduñ ci ak sago maanaam mel na bëgg nañ ko lool mu ne ko ñii xanaa wéruñu mu ne ko wér nañ de waaye ci mbëggalum suñu borom lañ nekk mooy ñi nga xam ne su guddi masaana jot seen soxna yi leen yàlla daganalal fa lañ koy bàyyi dem ci soxna yu leen yàlla daganalul moo xam ci gaaraas yi dañuy daje moo xam ci yeneen barab yi nekk ci lu yàlla tere rek ba keroog waxtu waxtu seen tëri jot mu mu gis ca biir ay jigéen yu ni mel mu ne ko jigéen ñii ñoo ko daan def seeni borom kër borom kër yii ñoo ko daan def seeni soxna mu dox tuuti gis jëmm joo xam ne day taxan matt mu baree baree bari bu ko jéemee yanu du ko attan nes tuuti mu sàn mu tegaat ko ci suuf dem di daggaat di ji dolli li ñu xamoon mooy say bu bu baree nga wàññi ko waaye moom day nag di dolli ci say bi mu ne ko kii moom luy mbiram mu ne ko mooy ki nga xam ne daa laajoon am réew bañ jox ko ko wala mu laaj ab poste bañ dénk ko ko te sàmm ko nam ko war a sàmmee mu dem ba war a delloo yëfi nit ñi taxaw teemu ci naan gën leen maa dénk wala dénkaan leen ma ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne doomu aadama mbiiram bii mbébétam yii lu dul dee du ko fees bu wutoon bu ñaanoon yàlla ñaari xur wursit dana sàkk bu ko ñetteel mooy ki nga xam ne liñ ko dénk mënu koo saytu na ko war a saytoo waaye mu ngay xool nu mu ca dolli mooy nguur soosu nga xam ne day taxan di dolli te waroon koo mën a wàññi. mu rombaat aw yëkk yëkk mag génn ci pax mu ndaw mu yéem ko lool waaye yëkk wi li ci kéemaane mooy bëgg naa duggaat ci pax mi waaye mënu cee dugg mu ne ko yëkk wi moom lu ci suñu borom bëgg a jàngale mu ne ko mooy ki nga xam ne ni aw làmmiñam du koo téewut lu ko neex wax fu ko neex waxee ndax ki wax wax ju mu warut wax. di ci deltu ginnaaw di rëccu ak a jooy te mënta fexaat ba fexewaat ba dabu wax ja mooy noonu jëkk wi di def ak yeneen i mbir yoo xam ne sallallahu alayhi wa gis na ko ci diggante bii ma la wax diggante bi mu bàyyi ko masjidul haram jëm masjidul aqsa ba mu fa àggee fekk na fa yonent yi fi ma a jaar yépp fa lañ ko indilee ñetti ndab wala ñetti bool ba ci ñaar ndab loo xam ne sàngara la def ak ndab loo xam ne soow la def ak ndab loo xam ne lem la def sunu borom ne wax Seydina Jibril ne ko nee ko bu jëlul woon soowam sow mii lu ëpp ci aw xeetam danañ sànk ndax lan sàngara mooy tegtalu ñaawteef ak bon ak ay ak musiba ci àddina saa yu sàngara amee doole ci ab dëkk tasaaroo yaatu xam ne ne musibaa ngi ñëw moo xam ne dootul dog dootul dagg xanaa sàngara sa ju dog ko rek waaye alhamdulilahi ba mu jëlee soow ma bàyyi fa sàngara sa julli jot mu jiite yonent yépp ci ñaari rakaa kenn ku ne ci ñoom ñaanal ko suñu borom ca la ko yàlla def ba mu fa mu ah ñu euh, ci asamaan yi asamaan su njëkk ci siis fa fekk suñu maam aadama mu jàll asamaan ñaareel fekk fa Seydina Yaxya ak Isa fekk fa ah, jàll asamaan ñetteel fekk fa Seydina Yusuf alayhi salaam jàll asamaan fekk fa Seydina Idris جل أسمان جرومين فك فسيدنا هارون جل أسمان جروم بنيل فك فسيدنا موسى دم بأسمان جروم يار مفك فسيدنا إبراهيم كن نقولك يوم نكون مرحبا بك أهلا وسهلا نقولي نوكل دلا تتقال يالنا يالنا دمبري كليم ليون يالنا يالنا نقل ولا سج سنوني جمانو فهونك يوم خمن اللي خير يرمن كلول نخمن اللي جيبري تنيوم يب دون يبغى دجاجم مرخصني برام ngir wan leen jëmmam bañ gis ko waaye ngir mu xamal waa banu israila ne leen ak nubuwa jeex na ci yéen dootu leen ci jot foofu nag la rañaanee jëm fu ñuy wax sidratul muntaha muy garab bu yéeme garabu déem bu yéeme yéeme gis na fa lu ne ci ay malaayika xeetu malaayika mu ne gis na ko fa mu jàll jëm fu ñuy wax baytul maamuur baytul maamuur fa mu nekk ci kaw yonent bi nee na bu daanu woon ci kaw kaab gi lay daanu bu daanu woon ci kaw kaab gi lay daanu néeg la boo xam ne juróom-ñaar fukki junniy malaayika danañ ko wër te ñu wër dootuñ wër te bis bu set loolu ma ngay am moo tax sëriñ Tuubaa ne wa baytika al maamuur ya rabbi wa ma yazuruhu min malakin fawqa sama di ñaan ci barkeb néeg boobu romb ci ay xeeti malaayika yoo xam ne dañuy sujjóot te dootuñ siggi am ñu rukon te dootuñ siggi am ñu taxaw te dootuñ sëgg ñuy wax xeeti sàbbaal yàlla bu ne di tatagal yàlla ci nu ne ñoom ci seen jëmmi bopp mat nañ ay milliards yi milliards te kenn mënu cee xool sa morom ngir ragal yàlla suñu borom wuteeg ñun yëngoom lu ñu def ko dala di xel lool ci suñu alal fàtte fële suñu borom waaye ñoo xam ne ba leen yàlla bindee ba tey mosuñoo siggi ci ab sujjóot loolu ab soñee la ci ab jullit foofu noonu la wéyee dem borom bu nangami juróom-ñaar fukki junni kii raay jëm fan jëm ci pay pay bu tedd boobu diggante bii may wax nag moo gudd te yaatu lool ba mu àggee sunu borom wool ko boppam ne ko udd na yaa xayral bariya yow ki gën ji mi ne fi jege maa la woo te ku la woo dana la wax mbaa mu jox la mu xamal ko mu jegeel ko ci boppam bam jege lool fa kaana say ni aw addana adna melo woowu naa Seydina Jibril dikkale woon melo woowu la ko suñu borom jegee jox ko fa xam-xam boo xam ne moom képp koy xam ak xam-xam boo xam ne képp ku ko jegoo mën na koo xam ak xam-xam boo xam ne bu ñëwee ñëpp ko war a xam muy xam-xam shariatul islam yi bii nga xam ne kenn ku ne ci ñun sa mucc ci ci aj yàlla ñu ko yàlla jéggaloo amin daal di farataal bokk na ci loolu farataal julli juróom ne ko boo àggee nañ ko sàmm woyofal ci lu bari génnee ci lu bari loo xam ne bu ñu ko toggoon def rek moo moo ñuy sant mu dellu si waat jóge foofu dellu si ci guddi gi romb ci yoon wi ay giléem giléem yoo xam ne waa Quraysh ñoo ko moomoon am ca giléem gu réer mel nangam ak nangam ba yàlla dogalee mu agsi nag ca dëkk ba xëy suba di leen ko wax ñëpp ña ko daan weddi daa ko di ngeen yàkkamti woon lool xibaar bu ni mel am ci jullit ñi ñoo xam ne keroog dañoo deltu ginnaaw ne kii daal nakate li muy wax ëpp na wax bay wax ne daa dem barab sàngam ñoom waxumal asamaan si ma tudd waaye jëmi baytil maqdis bi nga xam ne moom màkka ñii ne nañ àgg na ci junni kilomètre ak lu teg loolu lañ mun a gëm ci seen bopp am benn yéeféer bu xereñ ñëw ne ko ginnaaw nee nga dem nga baytil maqdis li ñu lay laaj mooy nan la mel ñaata bunt la am ñaata poto ban wet la nangam féete nee na keroog jàq naa njàqare loo xam ne ba ma yàlla bindee keroog musuma jàq njàq jàqare lu ne mel ndax guddi laa fa dem guddi laa fa dem te gisuma lépp nes tuuti muy xool ci kaw ak ci suuf ndax jaaxle sunu borom yebal Seydina Jibril mu jël néeg ba fa mu nekk mu taajal ko ko ci diggante asamaan ak suuf muy wax di leen tontu ci lépp liñ ko laaj comme ni ko yonent yàlla defale woon yonent eh, suñu borom defale woon yonent yàlla Suleymaan ca arsu balxiis ba noonu it la ko sëñ Tuubaa bindee ci benn xasida boo xam ne ko jëndee ak wedd gëmal te ñaan la te xam ne suñu borom ay jëfam boo ko nattalee jëfi nit di nga juum te di nga sa bopp ndax di nga weddi loo war a weddi mbaa nga weddi koo war a weddi foofu nag la Seydina Abubakar dikk daal di daal di gëm-gëm gu rëy ne lii lii mu leen wax ba mu leen di yëm wax na mu lu ko gën a doy waar fopp te mosuma ci am déng-déng moom la sëñ Tuubaa di juñu ne xat baata yuxriqu tibaaq fi leeli qaasida alwifaaq wal ambiyaau bi ittifaaq laaqawhu bi takarrumi fa gaaba anhum wartaxa ca la mujj àgg fawqa alburaaqi li liqaa xabibihi waxtaraqa xajba ilaahi almunimi بين وجدوك ثم ردارهم سنا وقد حوى كل منا منه اذهب العنا ويالبات النقم ودمجي مواهب نافع قد حاز فغرا من حين اسرى بالجسم جهرا من افترائي نينا جم مودمون دا فا ام ني يوندي بي روبي كيف مودمون واي جم جي ديمول ام ني يرام وي مو رانيان واي روغي دا فا ييك ني jëmm ji ak ruug yi lépp maase dem pam dem ca suñ borom te ñooñu sëñ Tuubaa nee na man ñu ko wax ci laa bokk te gëm naa ko gëm loolu ndax nee na wa huwa la amri al israa ilaahi ilaahi bihi bi ruuxi wal jismi laylan lis samaawaati nee na mooy rañaan gi nga xam ne maa ngi giñ ci sama dund ni yàlla moo ko ko rañaanal mu dem fa moom te jëmmam ak ruuxam ñoo dem waaye ñàkk dégg baaxul ci am njàng njàng mi dë mi gën a mën a yàqal kiy jàng موي جانلو دو دغ سبحان الذي اسرى بعبده تدنا سلو يالا ميغا خامن ني مو رانال اب جامم جف جي دوغا وير تي يونتي بي ديف ديفكو واي سونو بروم ميغا ديف تي كوي وير واي بي عبد الله الله بعض العبد ارا بوغا وخي نيت كو اندك رو اك جيم لاي واخ لولا تودي لولا تودي العبد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تي نيون ني نيب كو تي تيد دي نلاو سرو دنا داجي رو ني فاتو بو ياغ waxtu wo ñu daje sax ci ngay génte yënd gént yu la yëm ci nit ko fi jóge won bu yàgg ngeen wax lu bari bu suñ borom sotalé bu guddi gi di bëgg jeex ruuy yi dañuy dellu wat ci jëm yi ruuy yi faatu won dañuy bëgg ànd ak ruuy yoyu suñ borom té leen duñ mëna té dem lolu képp ku tëdd di nelaw dina la dal waxe suñ borom na nak ma wax ko ngeen dégg allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati xadaa alayha al wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun bu ko defee ruux yooyu nag loolu ñuy def day wane ne du kéemtaan su fekkee ruuxam kese moo demoon ndax ruux yëpp dañuy génn ci seen yaram di dem di dem ci ndigalul sunu borom mbokk jullit yi xew-xew la boo xam ne rek dañ ko doon fàttali ndax pas-pasu jullit dajee aju dañu ko gëm loo te li ñu wax léegi gëm ku muy dëgg ci yow ñàkk a teg sa bët ci lëf du tee nga mën koo waat ci waatukaay yépp oto yu gaaw yi ak avion yi bu ciy dem ci baram mën ngaa gën a gàtt aw yoon ci bi nga gën a gaaw moo tax kàttan gi ngay tukkee mën naa néewal jamono bi ngay tukki te loolu borom xel yépp ko xam jamono bi ngay tukki su kàttan su li ngay tukkee su fekkee néew na kàttan jamono bi ngay tukki mën naa gën a yéex mën naa gën a diib gone boo ko doon doxaloo jëm ci barab ak ponkal mu ànd ak dooleem ñu dox jëm ci barab ci ngay gën a xamee li ma lay wax mbir yi it bu ko wéer ci jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wéer ko ci suñu borom mi ko ko defal ndax waxul saraytu rañaan naa dane rañaanal nañu ma asraytu usriya bihi kon loolu lépp a lu mat a bàyyi xel la ci gëm-gëm bi muy nag loo xam ne ci weer wii la xewe woon ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar am nañu ko wax ne ci la xew-xew bi amee woon yàlla dogal it mu neex a gëm lool ndax suuf si ñu nekk benn planète la ci planète yi nga xam ne njabootu jant bi lañ te benn bu ci nekk ci yooyu ci kaw moo ëpp suuf si ñu nekk am na bu ñu tudd otaarit am bu ñuy wax zahra am miriix am mustari am zuhal am uranus am am yeneen ak yeneen ak yeneen te benn bu ci nekk day fay teguwul ci dara te moo ëpp suuf si boo boolee ndox meeg suuf si ak ban yeeg lépp benn boo jël ci ñoom ñoo ko ñoo ko moo ko am na benn nit ku doon gëstu gëstu bu yaatu yàlla dogoon mu dem ci jaww ji fu baree baree bari waaye nee na la ma fa fekk ci ay bidiw soo jëloon ab bureau du ji xaaju million ci ay téere yu ànd ak seeni xaaj xaaju million ci ay téere nee na la ma fa fekk ci ay bidiw xaraf ya nekk ci téere boobu sax bidiw yee leen di ëpp nee na suuf si ñu nekk boo ko méngaleeg benn bidiw ci bidiw yooyu dana mel ne ab tomb ab point bu tiim ab xaraf ab tomb bu tiim ab xaraf na muy tuutee seen diggante xaraf ba ak tomb ba la suuf di tuutee ci kanam loolu te loolu lépp bi ngi ci asamaan si di feey te tegewul ci dara te daan nan ngay mën a lee suñu borom mu rañaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi ko màkkatal mukarama jëm baytal maqdis kon loolu bu fekkee da ngaa jëfandikoo sam xel rek te amoo ngëm gu yaatu wala sax xam bëriwut weddi da lay yomb dari nag li tax ñu waxee ko noonu mooy am nañu ko weddi ñu ne loolu ay léeb la amut kon sëriñ Tuubaa jàngale na bokk na ci pas-pas bi ñu war a gëm bokk na ci li ñu war a jàpp kenn ku ci ñun boole ko ci li nga xam ne sunu borom moom la koy gëmee kon bu ko defee mbokk jullit yi al israa wal miraaj al israa mooy rañaan bi al miraaj mooy yéeg gi weer wii la xewe woon bari na ay wax yuñ ci wax bari na ay diingat yuñ ci indi danañ ko feetoog duñ ko feetu jaadu naag jaaduwut lu ne ñu ngi ko ci wax waaye lépp loo xam ne yaa ngi koy def te jëmmi suñ borom ji dong tax nga di ko def nga defee ko nañ la ko sante képp ku la ko doyee dalal waxul waxul lu wér te wax ju wér juyoo moom wàññiwul dara wax ju wérul juyoo wax ju wérul ji wàññiwul dara yàlla ñu yàlla dollee dimbali yàlla nañu yàlla dollee sutural waaye gindi ñu gindil ñu boppam li xew nag ñëpp yëg nañ ko ñëpp gis nañ ko waaye yàlla nañ ci yàlla def bam soté sotteeg jàmm yàlla nako suñu bakkat ak suñu ru fekke sunu sago ak sunu xel yàlla nako fekke amin astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin قيما لينذر بأسا شديدا